noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi kattanal ko te wéral ko dañuy jéem a gàttal nuyoo mbooleem ñu ne ci saal bi dañ koy teg ci loxo Alaaji Serigne ko Serigne Cheikh Oumy ak Serigne Abibou ak Serigne Abdou Lahat buñ tuddee soxna Bintu soxna Ndey Diop ak soxna Alimatu Dukure mu yóbbaale soxna yépp bu ko defee nag ñu ñëw directement ci li tax ñu jox ñu kàddu gi ci gàtt gàtt leeral leen fii Touba ca kanam ba mu tàmbaleeg léegi li nga xam ne mi ngi koy def ci mbooleem xeeti liggéey te mu séddaliku ci fanweeri projet ak juróom mooy kayit wii nga xam ne yéen ñëpp jox nañ leen ko wala ñu ëpp ci yéen fanweeri projet yooyu ak juróom dafa séddaliku ci juróom-ñetti domaine yooyu nag amoon nañ yéene bu ci nekk ñu taxaw ci lim ko leeral ko waaye temps bi xooj nañu kon ni ñuy def rek mooy dañuy daal di wax ne Touba ca kanam bi mu tàmbalee ak léegi li nga xam ne moom la dugal a guñ ci biir Touba kanam toll na ci fukki milliards ak benn ak genn wàll onze milliards cinq cent millions Touba ca kanam investir na ko ci Touba ci trente cinq projets yooyu ci huit domaines yi nga xam ne moom la ñu énuméré ci document bii euh, juróom-ñetti naal yooyu nag bi ci njëkk mooy lu jëm ci wàllu éducation wàllum njàng ndax xam ngeen ne Touba dëkkub daara la ak ni njàng euh, xam-xam ni mu ñoree woon sëriñ bi moo tax Touba ca kanam jiital ko am juróom-ñaari naal yoo xam ne mi ngi ci biir programme mu njàng moomu te xëy na bu ma ci jukkee benn wala ñaar lu mel ne daara yi nga xam ne moom la ñuy wooyee daaray tànneef sëriñ Saliou Jaxate jiite programme boobu mi ngi di toog daara ju nekk war a jël téeméeri donga ñaari daara ñu ngi ciy dox te yéen a ji mooy gox bu nekk rek am daara ju fa kanam taxawal beneen bi ci toppaat mooy lu jëm ci wàllu yalwaan Touba ca kanam indi ci programme bu am solo boo xam ne ngir fexe ba donga yi man seenu nekkin gën a mucc ñu ne nañ fexe ba kër bu nekk boo toggee ba noppi añ wala reer nga tibbal daara ji gën a gën a jege Touba kanam jàpp ne loolu bu ko waxee rek bàyyi mën naa bañ a dox ñu ne kon nañ ko accompagner ci jënd ay bool teg ko ku bëgg nga bindu ci di jox koñ boobu juróom benn junniy bool ak juróom benn téeméer Touba ca defagul na ko ci loolu ñaareel bi mooy lu jëm ci wàllu wérgu yaram li Touba ca kanam di liggéey ci poste de santé ñëpp gis nañ ko ñetteel bi mooy lu jëm ci wàllu environnement programme bi ci gën a rëy manees na koo seede bërki démb bi président de la république di présider reboisement bi nga xam ne moom la ñu def Touba lu jëm ci wàllu assainissement Touba ca kanam jot naa liggéey ci wàllu drainage des eaux pluviales te mooy wutal ndox mi aw yoon luy tolloog juróomi téeméeri mètres réseau juróomi junniy mètres réseau tolloog 5 kilomètres Touba ca kanam jot na koo réaliser ci wàllu yoon jot naa defar luy tolloog juróom benn kilomètre yu teg tuuti point yi nga xam ne ay point yu am jafe-jafe la ñu def ko ay radier jot nañ cee defar luy tolloog 1245 mètres tàmbali nag programme pavage quartier yi ndax Touba ñëpp xam nañ ne dëkk la boo xam ne agglomération la ci ville yu mag yi la bokk kon woon na mbedd yëpp boo fi soxla woon dank suuf tey doo ko mën a am ndax mbedd yëpp dañ ko war a pavé loolu bokk na ci programme yi nga xam ne Touba kanam mi ngi ciy taxaw lu jëm ci wàllu éclairage publique mooy éclairage public mooy juróomeelu domaine bi mille neuf cent soixante lampes dix-neuf mille neuf cent soixante kon ñeenti junniy làmp wala bokk ñaar fukki junniy làmp yu manqué ñen fukk Touba ca kanam installé na ko biir Touba dix-neuf mille neuf cent soixante lampes loolu buñ la ko dee wax mën ngaa jàpp ne xay na lu ñu lu ñu chiffré nii rek wax ko waaye ku ko bëgg a xam da ngay dugg biir Touba wàcc ci mbedd yi ku ko wax yàlla na sa aju faju tey ëllëg jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba kon ñu ngi yëkkati suñuy kàddu ci ndigalu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu jiital ziyaaram ak nuyoom a Cheikh Mouhamadounil Mountakha al xalifatul aam li taifatil muridiya xafizahu llahu waraahu mi ngi ziyaara waa tubaa ca kanam jiital ci ziyaar beeg nuyoo bi Cheikh Mahmoudul Habib ibnu Cheikh Mahmoudul Fadil nee na mi ngi lay beral ak cant bale sa di la ziyaara di feddali sa kóllëre ak moom di ziyaara sa mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo fi teew te bu la tuddee rek mel ni tudd na ñëpp ma teew fi nag ànd ak sëriñ Ahmadou Mbacke ak sëriñ Abdou Khoudoss Mbacke ak waa diwaanu silkul jawahir fi axbaari saraayit yëpp kenn desut ndax Cheikh Ahmadou Kara bi da koo ñor lool sëriñ Habibou Cheikh Amadou Kara sa taxawaay da ko rafetlu waaye ku ñuy tudd di tudd sëriñ Fallou boo melee nii ci Pastef la xarwa ndax sa wayjur wa dafa waxoon ni bentu bu nu watiya bil irada lakum li kay uhda bi xarqi aada min baadi mashtaritumaha min ni ahdaytuha lakum bi xeyri man ni dani man sëñ Tuuba man Cheikh Mamadou Fadal aw ma baay du ma doom ju bëgg a donn baay ba ndax aw ma baay te defuma taaliba buy seex seexlu ba yàgg mu ne du ma dara sax lu ñu tudd sëñ Tuubaa rek ma dugg ma ca biir kon nee na buñ la dee tudd di tudd moom dul Fadil sa taxawaay rafet ca Touba ca kanam loola du jaaxal kenn soxnay Touba ca kanam nag rawatin yéen ñu féete jaspooraa bi gàcce ma yéen def ngeen la ngeen war a def néewoo leen damay jigéen rek waaye su ma doonoon góor ndax sëriñ Mor Khady si da daan wax naan jigéen ju nar a baax du ni damay jigéen rek waaye su ma doonoon góor seen royukaay nag di soxna jaariyatullahi ma Mariama te waykat ba ba mu koy wax dañu ko lewet dañu ko danga lewet yaatu am ngor am teraanga ju mat xam yàlla xam yi la jaajëf jaaratullahi ngeen di jël seen alal seen lépp di ko def ci yoon wi te xam ni Serigne Touba rek mata lebal ndax amul ñemewut bor daa am pay ndokk nag ba seen yitte ji Touba ca kanam mel ni dangeen ngeen dégg waxi Serigne Saliou jëm seex Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni ndax Cheikh Ahmadou Kara daa togg Serigne Saliou ni ko Mbacke man de mënatumaa dem Màkka Serigne Saliou ni ko lu tax mu ni ko bu ma fa nekkee sama jëmm fay nekk waaye sama xol yëpp Touba lay nekk ndax am gu yéene gu ma am yéene ngir na foofa mel Touba mel ko ci zahir Serigne Saliou hmm, sàllaaw de walillaahi al-mashriq wal maghrib bi ko borom di wax foofa ak fii la ci jubloon Cheikh Ahmadou Kara loola daal di dëgëral yaakaaram lool Cheikh Ahmadou Kara teg ni ko dama bëgg nga ñaanal ma Mbàkke li gën a yéeme Touba ëllëg ma bokk ci ña ko fay def mu ne ko na nga rafet njot te dala sa xel te xam ne fu sa yéene toll rek kattan gi dina ko weesu Cheikh Ahmadou Kara nee na loolu ku ma ko waxoon ku du doomi sëñ Touba dama ci xalaataat kon ñu ngi lay sant bu baax sëriñ bi dina ñaanal Cheikh Ahmadou Kara nag day koo xam ni bu yoon wi soxlaa moom day fàtte lu waay am day fàtte lu waay man lu waay am rek ndax daa xam ni wërsëgu yoon wi itte yoon wi mënu ko jeexal tax sëñ Tuubaa dafa wax ni lépp loo attanu joxe ngir yàlla boo gesoo gis ku la ko nangoo jox ngir yàlla lépp loo xam ne attanoo koo joxe ngir yàlla boo doon wër àdduna doo gis ku la ko nangoo jox te ñun murid yi bu ñu goree duñ desal dara suñu diggante ak sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa desul dara diggam ak boromam jumlatu maali wa midaadi wal xalam hadijatun lil Mustafa babi niam kon nag Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nii ba mu jógee rek la ni Touba d'abord baatu Touba d'abord ñëpp xam nañ ko Cheikh Ahmadou Kara kon Touba ca kanam ba muy wax naan lenn rek ñu tee nelaw Touba doon état bu gaaw bu autonome te ñëpp ñëw maa si teew ci sa kanam loolu ba mu koy wax yàgg na kon bu ngeen ñëwee ni Touba ca kanam te Cheikh Moudou Gara day wax ni Touba ca kanam du mooy borom Touba ca kanam la borom Touba ca kanam borom Touba nag bu nekkee ci kanam ni la sax laxat sabaxtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin ashqaahu mawlaahu ne ca kanam te nee na nekk ca kanam boromam moo ko fa yóbbu waaw ndax bëgg a ne ca kanam taxut a ne ca kanam waaye bu la suñu borom yóbboo ca nga ne ca kanam te nee na nekk gam nekk ci kanam kenn rek a koy umpale mooy ki nga xam ne daan nar a texee di kon sëriñ bi nee na yéen a moog waa Touba ca kanam ak diwaan bi yëpp fas nañoo ànd léene ànd ànd liggéey bi incha allahu taala ba na ko sëriñ Touba bëggee lam ñaanoon ca dëkkam ba wacaan bi daariye kal madina barakatan wa kaabatan masuuna loolu yëpp ñu ànd ko ba zaahir si yëpp sotti ndax baatin ba moom borom moom defal na koo bare kàddu yi xaw naa ko nu mu tuddati waaye waxtu wee di xattee rek ñu jéggal ma ko lu ci dëng rek te xam ne Cheikh Mamadou Bachir daa yóbbaale sunu kàddu ndax moom boo xoon rek mel ne ni kaddu Cheikh Amadou Kara dugg na waaw ñu ngi sant kilifa yëpp ku ma ci tudd ti ndax ñëpp samay baay lañ soxna yi itam suñuy yaay lañ lu kuñ ci tudd rek nga jéggal nu ko ñu ngi tuuba salaam ala may tamal huda jërëjëf sëriñ maam Thierno mu Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni sëriñ maam Thierno yar bii nga moo tax sa baay bu baax ba yónni la léegi nag lii ma yor ñaar fukki junni la soxna mbeen moom sëriñ Abdul Xaadir moo ma ko jox ni moo ko def ca Tuubaa ci kanam waaye mbayteen tey xaw ma lu ma julli bi ñu noddee bi soxna mbeen di daw di daw ci ginnaaw bàyyam rek la ma woon bi nu noddee muy taw dama ko topp muy taw waa doomi Cheikh Abdou Khadir soxna Mbène moo joxe ñaar fukki junni jërëjëf alaaji la Ablaye bu fesee tuuru soxna Nogoy Jóob Italie jaayante na ñaar fukki junni waaye kii nga xam ne tam mooy waajur soxna Maguen Ngiraan ak njabootam ñoomit it ñoo indiwaat di jii ñoo ko jaan joxal ma waa finance nu jox kàddu gi nag waa ah, ñii di